Massata Samb ak ki nga xamante ni moo di ma Mamadou Niang ñoom ñaar ñi ba léegi nag yoon bàyyagul leen ginnaaw bi ñu amee jafe-jafe ak ki nga xamante ni moo di Amy Ndiaye Gniby ñoom ñett ñëpp ñu nekk nag li nga xamante ni moo di ay député foofu sa assemblée nationale jafe yooyu nag mën nañu ki nga xamante ni moo di Amy Ndiaye Gniby daal daa yëgati woon ay kàddu nee nañu teg ko si daw ki nga xamante ni moo di seen kilifa gi nga xamante ni moo di seen Moustapha Sy te kàddu yooyee nag neexul leen woon benn yoon ba taxoon nag ñu jógee fañ nekkoon daal di koy teg li nga xamat ni daal seeni loxo laal si ki nga xamante ni moo di Amy Ndiaye Amy Ndiaye Gniby moomee nag yóbbuwoon leen si yoon yoon nag àtte woon leen ba noppi daan ñi nga xamante moo di ñaar député PUR yi juróom benn weer yoo xamante ni dañ ko tuddoon fi nga xamante ni moo di si prison bi ba noppi alamaan leen tamit lu tolloog ñaar fukki leen lu toll ci maanaam juróomi million yoo xamante ni dañ koy jox ki nga xamante ni moo di Amy Ndiaye Gniby ñoom nag ñu leen doon toppee li nga xamante ni moo di ku coup et blessure volontaire waaye àtte boobee nag ñoom doyul leen woon benn yoon ba taxul ñu def li nga xamante ni moom la ñuy wax appel fi nga xamante ni moo di ci kanamu tribunal bi appel boobee nag mën nañ dina leen ko àttewaat kon ah, li nga xamante ni moo di lëndi bi nga xamante ni moom la ñu dëgmal nii yemoo fukki fan ak ñetti ci weeru mai 2024. ba léegi bu ñu sukkandikoo ci journal bi nga xamante ni moo di Les Échos ñoom ñaar ñi nag ginnaaw bi ñu leen àtte woon ba daanoon leen daan bi nga xamante daanoon nañ leen ko nag weer yooyu tëddoon nañ ko ba daaloon génn ci mois de juin 2023.